asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu. ñu ngi gërëm ñëpp. di jëlee ci nuyu bi suñu kilifa gi suñu Abdou Aziz suñu mag suñu xarit suñu waajur bi suñu lépp. ñu jël ndigal bi nag ñu ngi jot nuyu sëñ Saliou Mbacké. ak ñu ci xabar gi yëpp di wax suñu xarit boobu yëpp. ñu ngi fi ci teewaayu sëñ Saliou Mbacké. mu seen xaaj awa ba ànd ak suñu rakk sëñ Mamadou day état yu Mbàkke ak sëñ Mourtala Mbàkke ak leneen ci taalibe yi ñun ñu boole ñu ànd ak ñoom teewal ko fi yéen di leen xamal ne sëñ Saliou ñenn bi nga ànd ak sëñ Abdou si seen jotaay bi ndax ku ne xam na ne yu bëri nii ak yi amoon na xarit yooyu moo tax ñu mën a deew képp kuy kuy kuy seetaan gis-gis eh, ñu nekk eh, lu mel ni ñu taxawal Ndakaaru kanam dana gis Saliou moo cay jiitu moo cay ndax képp mu ko fonk ak waxalin gi nee daal boo amoon la ko gën a moo fi teew moo fi jiitu moo fi mujj waaye nag ginnaaw bi la ñu woo fi nekk ñëpp ne fa mën nekk ngeen def seen yitte ñoom teewoon nañ ci ndax le précis dina ko lu ëpp loolu kon jurit dañ bi ñëw fii suñu teewaay eh, di la wax ne eh, jàpp koo ñu jàpp ak ñeewante koo ñu ñeewante ak safoo koo ñu safoo moo tax loolu la ko la ko mën def incha allah taala di bu bu ñu yàlla may wér danañ ko fekk si. am na suñuy daal di mel ak suñu bopp baax. di ndokkeel bu baax a baax di ndokkeel mboolem taalibe yi ñëw mu di ndokkeel mboolem daayira di xawatu yi nga xam ne yi xaasin yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di wax ne xam ne ko sëñ Baara boo waxee rek lu baax moom ngi lay baax lu baax moom lii lay fekk ji wane nangu ko suñu borom nangu tax doon loo xam ne tàndoo lay doon mën naa am ëpp mbooloo waaye du mu mu mooy mu mu mooy say wax ndax dañuy wax ne seetaan sax bu ñu mu commencé lu lu mel ne lu baax waaye bu méttee mu daw te te ñun dañoo xam ne fekk nga ko koy def am na ci bis yoo xam ne sax daanaka mën nañ ne moo ñu mag muy bis yi ngay def Dakar yi <coughs> noonu kon loolu euh, ak bëgg Sëñ Tuubaa la metti na lool coono yi bari na lool waaye nag lu baax lu yomb mu amul fenn nit ñi tamit di say wóolare di say taalibe ak réew mi ni mu xatte fenn fu ne nit di duggee fa ci régions yi fenn fu nekk nit ñi ba ay fa xam ne sori na lool kon loolu sax ak yi yitte ak sa gudd lu baax moo ko waral ñi daal foofu ndax waxtu yu jot la di la baax di la ñaanal yàlla nga yàgg ko def lool am na soo njaboot yi taalibe yëpp di ak sëriñ Tuubaa jërëjëf Mbàkke nit kii jàpp na ci bis bi ndax seen Pastef boo xoolee keneen ka gën koo jàpp ba ci bërki démb rek muy wax seen taxawaay ñoom daa waa daayira Janwa ak yéene juñ ci am mu mel ni dañ koy xëccoo ñoom moo tax daanaka bu leen di sant du mën a lim sax nee na ndax boo dee tàmbali doo xam koy tàmbalee doo xam fooy yem mu ni ci gàttal daal ma daanaka yàlla noo booleeg ñoom boole goo xam ne am na fu mu tàmbalee te amul fu mu yem mu tàmbalee ci lii mu junj léegi boole goo xam ni doomi sëriñ Touba moo leen boole woon muy a Seex Saaliwu Mbàkke muy koor gi mu fi mujjee fekke mu ni kon nag mi ngi bëgg ci taxawaay bi lool di leen sant bu baax di leen wax dal leen ak jàmm di ci boole waale daayira Torino bi ñoom itam ñëwe nañ niñ daan ñëwee ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ak mbokki taalibe fi teew yëpp